Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 6 mai 2024 suñu jógee foofu dañuy dem fële ca Ziguinchor ni ko olof Ndiaye waxee góor ca wax ja ginnaaw Bassirou Diomaye Faye bu mu ñi nga ministre mi le 5 avril 2024 kii di au gouvernement bi di Ousmane Sonko dafa joxe woon benn ndigal bi nga xamante ni kii di patron am di Bassirou Diomaye Faye moo ko ko digaloon mu wax ko képp koo jamono ji nommé nañ le ministre da ngay démissionné ci est poste boo xamante électif la muy député di maire di conseiller départementaux en tout cas boobu Bataille vers weer lañ leen joxoon ultimatum itam waaye dafa mel ni Ousmane Sonko dafa toog ba délai bi jot mu daal di koy def en tout cas kii di Ousmane Sonko daal dina démissionné ci li nga xamante ne mooy postam foofa ca maire bu Ziguinchor ginnaaw muy le 5. mais 2024 bi nga xamanteni amna am na muy li nga xamanteni dal Ousmane Sonko dal ni koy def comme adage bi nu koy waxe charité bien ordonnée commence par soi-même bala ngay lax jaay laaxal lek bala ngay diggal sa morom na sangu yow ragul ba set Ousmane Sonko dal mi jiitu gouvernement bi dal dina démissionner. ci li nga xamanteni moy maire du gouvernement en tant que premier ministre Ousmane Sonko dafa jàll ci acte bi nga xamanteni ki di patron di Bassirou Diomaye Faye dal dina koy sommé en ici dernier conseil des ministres bi mu dal di démissionné jëmale ko ci mandat électif yi nga xamanteni da fay éviter li di cumul de fonctions suñu sukkandiku

un mois lañ leen joxoon waaye dégg nañ daal ci wéewu béy mais leeraguñu que kii di Birame Souleye Diop moom daal dina démissionné en tout cas a Dièye déggooguñu ko kii nga xamante ni aussi mooy Serigne Gueye Diop di maire Sandiara bi joxoon kii nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye quatre lu toll ci cent cinquante parcelles yoo xamante ni waa Bambi waa Sandiara ñoo ko mënoon moom moom it dégg nañu daal dina démissionné mais leeraguñu bu ñu leer daal mooy Ousmane Sonko charité interessante que postulinga contenemoi meri shigesho. Thank <laughs>